alors salaamaaleykum salaamaaleykum bonjour maître. soxna si na nga def. def ngeen liggéey bu ama am solo pendant quatre jours. Euh, yaakaar naa yow bokkoon nga ci participants yi mais en même temps euh, connaisseur nga ci li nga xamante ne moom mooy assises yi ñuy def. waaw waaw c'est vrai loolu def nañ travaux yi. D'ici quelques minutes, on va procéder à la présentation, à la restitution pour les commissions ak sous-commission yi et que tout s'est bien passé quoi. est-ce que jàpp nañ ne euh, cette fois-ci euh, conclusion yi dinañ ko appliquer parce que sénégalais yëpp loolu la ñu nekk di mettre en exergue par rapport ak assis yi fi jotoon a am. waaw njort nañu ko parce que tout simplement euh, mën nañu wax ni li nga xam ne moo fi am. comme waxtaan comme dialogue comme assise euh, wute na ak li nga xam ne moom lañ doon faral di gis déjà qualité wu participation bi nekkul lenn jour talaata bi passé ñu ngi woon fii ci salle bi pour def lancement bi daanaka diirub semaine Euh, tous les jours ñu ngi fii di waxtaan di diisoo di partager expérience di génne ay recommandations jàpp nañ ci buñ ci génnee danañ mën a ñoŋal xar kanamu justice fii ci Sénégal en tout cas am ay règles yi nga xam ne day méngoog ponk ak charte yi nga xam ne ñoo nekk ci mbirum droit de l'homme maanaam ak ak yelleefu doomu aadama dinañ am justice bu moom boppam et que dinañ am en tout cas ay objectifs yi nga xam ne moom la citoyen di doon xaar maanaam ñu am justice bu tëddee njaxanaay euh, léegi nag euh, pour tontu gi sa laaj est dana am li am ci ginnaaw waaw parce que mbir mi bu buñ ci paree rapporteurs yi dañuy def benn rapport général et que rapport général bi war nañ ko pare di d'ici le 17 juin buñ ci paree nag dana am benn feuille de route ñu jëbbal ko président de la république comme ça mu jëmmal ko ak ay projet de loi yi nga xam ne day dem assemblée nationale indi ay coppite donc pour tontu sa laaj euh, bu dal lii ñu dund fii en tout cas lu naraw woro ak li nga xam ne moom la sénégalais yi doon faral di gis et que euh, du yàgg dara dinañ ci mën a duut seen baaraam teg ci seen bët. en tant que avocat gis nañu li nga xamante ne moom mooy quelques propositions yu bees yoo xam ne peut-être sénégalais ñu ko comme li bokk ci code de la famille bi muy âge mariage bi autorité parentale bi ce sont des cultures yoo xamante ni peut-être sénégalais yi guñ ko ñu bëgg ko instaurer ci ci justice bi est-ce que loolu aussi euh, préparé nañ ci nit ñi d'abord. waaw euh, parce que dafa am représentativité xam nga travaux yi nekkul rek ay universitaire ay avocat wala ay magistrat dafa am échantillonnage euh, échantillonnage boobu tey moo permettre ñu am sensibilité yëpp imam yaa ngi fii association de femmes yaa ngi fii association wu jeunes yaa ngi fii magistrat yaa ngi fii donc ñooñu ñëpp tey xalaat nañ ci loolu euh, am na li nga xam ne jigéen ñi yàgg nañ ko joytu léegi nag euh, àdduna day dox dañu jàpp ne société Sénégal dafa toll ci étape bi nga xam ne coppite yooyu mënta ñàkk parce que euh, buñ ko defut rek du ñu suñu jamono du ñu wàccoo ak ponk ak charte yi nga xam ne mooy les droits de la femme yi nga xam ne dafa tënk Sénégal sur le plan international ak les droits de l'enfant aussi. merci beaucoup donc dégg ngeen kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko donc dañuy continuer ak yéen rek ñu jël réaction salaam. bon déjà di ko rafetlu initiative bi nga xam ni le président de la république am na ko euh, muy lu am solo